ayca la sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen i safo Elvision Média man sista Eva maa ngi fii tey ci Rail bi FM ñu fekk fi waa septième promotion tey nii nag moo nekkoon seen fin d'année ñu jàng ba année bi jeex ñu war leen jox seen diplôme damay daal di dugg ci biir rek euh, xool waa septième promotion tey lan lan ñu dencal ci seen bis bi ay góor wala jigéen mag wala ndaw ay na ngeen maa ngi si jàmm rek ay ca

ma ñëw ma ne pourquoi pas ma dugg àjjana ba ma ñëwee naka tey li ma doon def ci biti ak fii c'est diamétralement opposé ko hmm. tàggat ngeen ma bu baax a baax.

waaw loolu dëgg la parce que foog naa ne bu ñëwee maintenant maa koy waaye sama grand sama papa sama nijaay sama tonton naka de boo toog di animé il faut nga joxe ay information ci artiste bi il faut nga divertir éduquer ou informer aussi tamit waaw parce que loolu yëpp jàng naa ko fi te le plus loo xam ne dafa ma apporté ci man tamit si sama carrière musicale. et je suis de la radio leader Rajo FM 111.3. maa ngi nuyu bu baax a baax kilifa diine ak kilifa aada yi nekk ci biir ak ci bitim réew euh, naka noonu tamit lay daal di nag ba ci hôpitaux yi di nemmeeku ñi ni ñoom ñoo di malade yi nekk yi ak malade yi nekk ci hôpitaux yi di leen ñaanal suñu borom yi fagi seen bopp ba ñu mën a delluwaat euh, am contentement bu baax a baax dellu si waat si seen émission bi di penco di am jeudi mu jot à partir de 10 heures jëm midi. seen émission bi di penco ngeen fas yéene cee ànd ak seen xarit seen soppee Mariam Diaw émission penco nag di waxtaan ak mag ñi di waxtaan également aussi ak ndaw ñi. Assalamu alaikum, salam alaikum, chers auditeurs et auditrices de la radio Leader, Radio FM 101.3. comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure tey nag si seen émission Béthio incha allah di ngeen ci ànd ak seen xarit seen soppe Mariam Diaw incha allah ñu fas yéene euh, jukki nag thème bu am solo maanaam euh, divorce précoce sëy yi nga xamante ni dafay daal di euh, teel a tas mais nag ci wét benn yoon dinaa ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Momar ak tamit ki nga xamante ni moom moo di Mariama Mané moom nag mu jiite kuréel gi nga xamante ni ñoom dañuy xeex lépp loo xamante ni dafay jëm ci wàllu yi di teel a tas Momar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. di am contentement bu baax a baax dellu si waat si seen émission bi di penco di am jeudi bu jot à partir de 10h jëm midi. seen émission bi di pencoo ngeen fas yéene cee ànd ak seen xarit seen soppee Mariam Diaw émission pencoo nag di waxtaan ak mag ñi di waxtaan également aussi ak ndaw ñi. السلام عليكم السلام عليكم شيرو جديدور اي جولي في سيد لا راديو ليدر راهي 501.3 كوم ني ولين توخي تو تالا كاينه سي سن ايشون بنتو ان شاء الله اللي بنتي عند احسن حالي سي سو بي ماهم جاو ان شاء الله اللي فاسيني جوكي نك تم ام سولو ما لا ما دي بوس بريكوس سي لي خمانتيني دا في دادي تيلا داس من دو موتيف بنيون اللي ناجي عند اكيغا خمانتيني مومو مودي موما اك تم كيغا خمانتيني مومو مودي ماريا ماماني مومنا mu jiite kuréel gi nga xamante ne ñoom dañuy xeex lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllum sëy yi di teel a tas maman maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Mariama Mané di mën a sikkal waxtaan bi moom tam. Mhm. di nuyu auditeurs auditrices ñu déglu tamit à travers la 123 muy Rewmi FM. jërëjëf merci euh, Mariama maa ngi nuyu bu baax a baax yow mi nga xamante ne yow yaa jiite euh, mbootaay bi nga xamante ne ñoom dañuy xeex wàllum lépp loo xamante ne dafay jëm ci divorce yi di teel a tas. banjugi bu baax a baax di la ziar waaw soxna Mali maa ngi lay fay bu baax a baax di fay tamit sama naataango bi di mama Dibé maa ngi lay fay bu baax a baax di wax tamit ne ah incha allah fi moom dinañ ko wax ëmb si ñaari way dencante yi c'est-à-dire ñaar ñi sëy moo xam góor ki ak jigéen ki peut-être bu fekkente ne nëbbonte dafa am seen diggante ci ba ñuy labatante amaana donc euh, ma jël exemple ci sama mbokku góor yi ku mel ni par exemple. Mhm. su ma ñëwee di bëgg a labat si soxna si nga xamante ni moo di Mariama. waaw di suñu exemple. ñëw daal di koy euh, nëbb sama bopp li naan ab doole. Mhm. wan ko wan li am. dana am ci sëy yi. Mhm. lenn waralu ko nëbbante bi. Mhm. aussi tam Mawar li muy wax naan ay. yow tamit kon tamit jigéen ñi tamit ñoom dañuy nëbbatu. non jigéen ñi dañuy nëbbatu dëgg la. Mhm. parce que jigéen bi mën na nëbbu jikkoom. ba dem ba si biir génne beneen jikko. mais man sama côté dama ne comme que nit ki soo bëggee. xam nga avant mariage. doo doo kii Mawar li mu wax. man ànduma si. ànduma si li tax parce que parce que nit bu buy ñëw si kër si war na war a mën a ñëw ànd ak yow xam defaral la. Mhm. tamit mais bu nee ba ci biir war na ko mën a continuer mais moom wax li mu wax man ànduma ci d' accord ma ci. àndoo ci naa moom. d' accord kon euh, li ngay jaajëfal dégg nañu baax a baax. kon nag si euh, ci la ko d'accord si la non d' ma ci parce que yow moom da nga adressé góor ñi xam nga. Mhm. man du ma du ma nangu loolu xam nga loolu tamit du ma ko nangu benn yoon. d' accord kon nag teewul loo xamante ni yow si la nekkoon di sëy muy ñaar fay. non non. dama dama nekkoon ci benn point boo xam ne pour mu point ci rek. ci ci appartement bu ngeen am. tey jii su ma ko jëlee dugg sama appartement. da lay leen ni man ak moom ñoo fa nekk. amuñu yaay maanaam góoram wala sama papa wala samay sëy ay njëkkër yu fay nekk yoo xamante ni buñ jàppante woon tey jii dinañ mën a yem intervenir

li ñuy jeexalee woon ci waxtu bi daanaka dafa jeex donc bu ñu dégloon tey rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di auditeurs ñi nga xam ne ñoom ñoo safoo Rail FM 101.3 comme ça ñoom ñu gën a comprendre débat bi mais su fekkee ne dañuy koy sëf sëf rek kon suñu mbokku auditeurs yi ñoom duñu duñu duñu déglu yow nga ne lan yow loolu. moom ah dafa dafa ne comme sama genre yi. waaw parce que tamit boo nekkee si kër famille yaa ngi dégg. nga am yaay nga am yaay yu mel ni la puissance. xam ừ. nga.

Eh, tonton Esa, eh, tonton El Bashir, eh, tonton Laipella, ak tamit suñu directeur bi maa ngi nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye El Bashir nag damay am contentement bu baax baax ak satisfaction aussi di tontu li wax dëgg yàlla bi may ñëw fii nii euh, xaw ma mënu ma woon ba mënu ma woon téye sax mais gis nga léegi macha allah dañuy wax euh, ci micro comme ndoxu naan gannaaw bëggee ñu tàggatee ñu leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm trois mois yi nag euh, li ñu fi jàng bëri na ñu fi jàng bëri na lool parce tamit émission bi ñuy def émission thématique la yaakaar naa également maîtriser tout un chacun ça y est, sa technique sa entre entre autres loolu moo quatre modules yoo xam ne dispensé jot ñi nga participants tout au long de la tout au long de la formation c'est pour dire que également ay heures 72 heures virtuellement parce que on s'était dit que les jours micro 4 heures de temps par semaine ils se sont rendus compte qu'on a dépassé les 4 heures. Chaque jour, chaque fois que nous cours, on fait plus de 2 heures. Parce que l'assimilation, on va faire. Si nous de défendre, pour que ce soit fait assimilation, on a travail, on a fait. En gros, ce mot-là, nous avons quintessence formation bi nga xam ne moom la ñu def si ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ne si si formation bi au passage ñu gërëm leen sant leen équipe de eh, équipe ah, équipe bi leen encadré également ñu gërëm leen sant leen parce que dafa laajoon patience koo xam ne musul xam rajo musul def rajo dafay toog sa nga gis muy apat ndax ci gis nga tey à la longue fin ba kenn apatul sera pour nettement que ne am na benn pédagogie bu am contenance boo leen bu leen mën a permettre ñu inculquer nga xam ne moom mooy le savoir participants yi ça aussi tamit ñu gërëm leen sant leen à savoir di jëlaat benn mais aussi ki nga xam tamit moom mooy moom mooy Bass la direction ñoom ñoo ñu mën a permettre également initiative yi ñu mën kaa parce que bu fekkoon dañ ko am ñoom ñu ne duñ ko développé duñ ko développé on a eu l'idée on a eu l'initiative on les a convoqués ñu waxtaan ak ñoom ñu ne jël leen dans la mesure où la rajo

en animation musicale wax nañ ko léegi mooy éduquer informer ak ak divertir hein? ok donc de ce fait que ki nga xam ne mu ngi déglu musique non seulement am stress nga mën a fexe ba moment bu mu lay déglu noonu stress am mu jeex parce que Sénégal problème de problème bi dafa bëri nit ñi dañu dañu dañu stressé wu donc loolu si aspect euh, divertissement bi si lay dugg éduquer maanaam nga fexe ba xale bi nga xam ne mu ngi déglu sa animation durant bu muy déglu nga mun ko yee si li ngay def informer c'est important parce que nit ñu bëri xamuñu li xew en général ci Sénégal wala ci ci milieu showbiz bi récemment bari ci démb dégg ngeen dese Habib Faye donc loolu dafay bokk si xale yi bu ñu toogee di animé ñu mën ko wax nit ñi ñu mën ko xam jàngal leen aussi naka lañu amé information ak naka lañ koy vérifier ak naka la koy diffuser parce que du n'importe comment ngay waxee si rajo parce que so ko wax information boo xam ne baaxul mënuloo ko jàpp te lu nekk mën la ci fekk ok. donc ci kaw loolu on va poursuivre dama leen di ñaan ngeen may loxo bu baax a baax accueillir comme il se doit ici même sur scène ki nga xam ne le directeur de la radio représenté li nga xam ne moom moo di administration rajo bi monsieur Mabar ngeen may ko loxo bu baax soo wootee benn mbir ay xale ñëw ci ngeen du gestu gisoo seen benn waajur na saxal parce que ndaw boobu ñu bëgg rek xam waaye ndaw lu mu bëgg yaa ca jàpp ca wala bàyyi ca jàpp ca jàppal na luy dem kanam la kon dañ leen gërëm yéen waajur yi nga xam ne yéen am confiance si ñu ñu woote formation ngeen andi seen i doom parce que boo dee ànd ak xel boo dee ànd ak ndaw ñi ñëw day wane ne da ngeen cee ànd te loolu la illustré euh, mais aussi damay gërëm ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo ñoom ñoo sabab lii mooy waa septième promotion xam nga formation en général yenn âge yi dafa jafe su nit demee doon ba ci digg bi nga woo ko ne ko kaay jàng la ca bari danaa sii man tollatuma fu may jàngee moom doy lu na xelam bu yàgg ba jàpp ne dara warut ci dugg xam-xam ndekete ba soixante-dix ans nit war naa jàng mën naa ba quatre-vingt-douze ans nit war naa jàng dama am benn xaritu mère boo xam ne quatre-vingt-dix ans donc c'est un de cyclisme tout le monde cyclisme des parce que chaque année a on kon on parce que l'engagement engagement bi ñu man ci jeudi parce que dimanche matin moom xam naa damay volonté trois heures nit ñi commencé avec saa bi heures de formation te bu wax ponctualité

waaye damay andi as tuut ba ma xam yéen ngeen àndaale parce que bi ngeen fii ñëwee dañ koy wax rek waaye lu bari àndoon ngeen ko da ngeen koo dencoon donc ci ngeen ñëw séddoo koog ñun ñun as tuut gën a amoon tamit ñu séddoo koog yéen ba nga xam ne ne dafay yombal li nga xam ne ne mooy partage ci sabar cinq instant na ko rajo FM da ngeen di dégg ñu naan rajo FM émanant du centre multimédia communautaire de Guinaw Rail

ci biiru liggéey bi nag dafa am ay principe parce que bu ñu sañoon ñëpp la joxaat ñu am possibilité continuer ay stage waaye formé wuñ leen pour ngeen stage ci rajo communautaire dañ leen formé pour ngeen nekk ay véritable professionnel de la communication ba nga xam ne ci média yu mag yi fu amul sax média bu ndaw mais média bu nekk privé yi surtout mais ma xam ne ne ngeen mën a liggéey ba mën koo teggee parce que tamit aussi emploi ngeen ko bëgg a def te dinañ leen ci accompagner accompagnement bi yemul ci formation théorique bi ngeen def ak pratique bi ngeen def accompagnement bi parce que jàngal nañ leen ko mooy bind concept émission baax na di def ak émission bu nekk muy animation musicale muy muy émission thématique ku ci amul concept bu baax doo yàgg fi nga jëm parce que nit soo koy dem da ngay am fooy dugub bu leer nañ te loolu mi ngi seen biir bopp yi mais nañ koy génnee pour mën ko jaay mooy daal jafe te boo demee fenn bu nga produire sa émission bu ko def te mënoo génne di nekk sa xel parce que aussi nit ñi amul temps recevoir la da ngay bind sa lettre bind sa benn fiche de mission fiche euh, kii andil ko mu lire ko xam ne fiche bi li ngay wax intéressé na mu doog waaye bu doonee day bëgg recevoir ku nekk da ciy dem da daal di jafe donc li ci ëpp solo mooy loolu nga xam ne ne ma ngeen ko def aussi parce que ci ci trois mois yooyu yëpp mënoon ngeen ko matale mais junj bi rek la liñ ciy jot nag dañ koy mottali ci une séquence yoo xam ay entretien soo leen amee soxla ñii seen à vie n'importe n'hésitez pas parce que ñoo engagé engagement ferme la parce que ci de former former accompagner insérer parce que satisfaction bi ci mën am am insertion

déglu naa leen xaw ma na la choix bi di demee waaye tamit foog ñu tànn mais ñeneen ñi xam ne aussi ñun formé wuñ leen juste pour ñu def stage dañ leen formé pour ñu nekk ay pour ñu nekk ay professionnels. donc am ngeen possibilité demande bind ay seen concept émission déposé ko fii mais déposé ko ci kenn porte télé rajo ak télévision ñun danañ ci def accompagnement nécessaire pour promouvoir su laajee ay këyit bu mën a wane ni motiver pour motiver seen dossier dinañ ci jàpp neexee yàlla ci tënk loolu laa bëggoon partagé audience bi ñi nga xam ne di gërëmaat waajur yi di gërëmaat sini euh, sini formateur di leen wax ne la rajo Rail FM c'est toute une famille et désormais vous êtes membre de la famille yéen ak seen i waajur la parce que yéen mën leen bokk ci famille seen bokk mën cee bokk jërë ngeen jëf bari na te jamono xam na donc ñu bàyyi seen i jéeg ñu wuy suñu donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax

di ko jëmale si ñi nga xamante ni ñu doon encadré depuis tout ce temps là ici présent muy mel ni Insa Sagna ak ki nga xamante ni moo di DJ suñu grand ak euh, El Bachir ñoom ñoo ñu doon accompagné durant ces trois mois. 11 janvier lañ fi dugg si woon ba 15 avril pendant trois mois ñu ngi def ak ñoom formation euh, jàngal nañu fi technique jàngal ñu fi animation présentation moo xam si thème.

puissance. La puissance. Alors on appelle très fort le pays La puissance. Euh, voilà, merci. <laughs> voilà. Merci.

amee meu mano, la meu ma gaaw laa tegoon kan moo lay jox sa merci may leen ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax félicitation Mbaye na nekk sa jiit laay amee Fall ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax Aïcha Fall voilà Aïcha lii rek la aku a dal ak yaru ci mag tey moom dem nañu Mauritanie vraiment may leen ko loxo bu baax ñu tàcc ko bu baax voilà bu baax baax ko Mariam ñu ko bu baax si bëgg ñu may leen ko loxo waaye ñu may xale yi loxo waaw waaw ayca may leen ko loxo bu baax baax baax may ko merci félicitations

monsieur Abdul Aziz Aziz Ziza il ce soir. félicitations Ziza. merci. voilà. félicitations de next live. merci. merci félicitations. Ziza.

monsieur Ousmane Sy ngeen may ko loxo bu baax a baax. Ousmane Sy Mix ñu tàcc ko bu baax a baax Ousmane. borom borom dama ko dégg de quoi. merci. may leen ko loxo bu baax a baax en tout cas nekk sa nit laay Ousmane merci et félicitations.

Voilà. Merci beaucoup. Mademoiselle Hein? Mademoiselle Mariama Mané qui may ko loxo bu baax a baax. Mariama Mané ñu tàcc ko bu baax a baax. su ngeen s'il vous plaît yéen élèves yi ngeen ñëw ñu def photo de famille ak directeur. ak ñun ñëpp hein? ok voilà. C'est ça. Presque mën ko immortaliser. Moussa Thiam merci beaucoup. voilà Mariama Mané ñoo ma la jox. Maria Malé merci. voilà may nañu ko la ko bu baax mademoiselle Maria Malé. merci bonsoir. voilà may nañu ko la ko directeur ñu invité les nga qui pour photo de famille ak. Euh, les diplômes. vraiment les diplômes xale yi ñu dem di tàggatu foofu merci à toute la presse merci seen présence seen ñëpp merci Vision Médias du bàyyi benn yoon ki ma taxaw ak nag moom tamit ci septième promo la bokk dama koy daal di dégg sama micro rek mu présenté wu wax lan la yëg ci bis bi soxna si nuyu naa la. fay naa la bu baax soxna si. wa waaw maa ñu gis na tey jii nii moom moo nekkoon seen remise de diplôme ci seen septième promo bi nga xam te ne Rail bi FM ñu ngi koy def di former ay animatrices yoo nan nga dundee bis bi. waa bis bi maa ngi koy dundee xanaa kontaan am mbégte bu rëy parce que yombul woon ba ñuy ñëw fii dara yombul woon dañoo ñëw tim micro bi dañ daan lox mais léegi macha allah gëm naa ne fii képp ku fi jug dem si beneen rajo wala si beneen tele di fa toj bu soobee yàlla di gërëm tamit bu baax ñi nga xamante ne ñoom lañ fekk fi ku ci mel ni Insa El Bachir Laay Penda DJ Laay tamit bàyyiwuñu leen ñoom ñëpp ñun kontaan nañu wax dëgg fa yàlla suñu bis bi moom ala doome na macha allah. ayca tubaarkàlla nee naa la Média du bàyyi benn yoon kii tamit ci septième promo la bokk sëñ bi nuyu naa

xëy na loolu moo waral tamit ñu am possibilité déplacer leen mais nekkul lu yomb ndax El Vision kese du ay fo. koy nuyu naa la. fay naa la. waaw ñu gis ne tey sa doom dafa jàng ba année bi jeex ñu doon ko jox diplôme am tey yaay lan nga yëg. xanaa kontaan rek di ñaan ngeen yàgg fi te wér ndax Mariama moo ñu fi indi tubaarkaala sama xaalis xëy na law la ca ñu nekk ak ñu nekk ak moom ci biir kër ga nag. te rëccuwuñu li ñu nekk ak moom ci biir kër gi ma yaakaar ne li mu nekk ak ñun ci biir kër gi bu ñëwee fi muy liggéey noonu lay nekkee am na yar am teggin am sutura fonk ndeyam fonk ma man mii fonk baayam fonk ay rakkam amul kenn xaar ma yàlla ca koñ ba kon bu wootee dinaa ñëw ku mel ni ma nit dina ñëw jërëjëf waaw nee la bu ñu jugee ci élèves yi dañuy daal di euh, dem nañ ci parents d'élèves yi tamit ñu ngi taxaw koo xamante ne moom tamit ci professeur yi la bokk muy El Bachir gars yi di ko wax borom baatu wurus bi bëgg naa su paree mu indil loolu ci ay leeral El Bachir nuyu naa la. Eh, si maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. Eh. ñu gis ne gars yi eh, borom baatu wurus bi lañ la tuddee lu waral loolu. waaw oh, mais dara xam nga moom gars yi dañuy wax rek waaw dañuy wax rek mais ma dafa nekk loo xam ne vraiment. Euh,

dina dina am du am lépp waaye dina am li mu am dina am dina am as tuut daal. waaw tey ban satisfaction ngeen yëg parce que gis naa ne tey jii ne élèves yi ñëpp ñëw nañ seen parent yi teew euh, ñi nga xamante ne dañ leen doon gis ñuy jël seen sac di ñëw chaque jour te xamuñu lan lañ doon def ñu ñëw tey gis ne formé formation bi ngeen def si xale yi mucc na ay macha allah tey ban satisfaction nga yëg ci lool. waaw satisfaction bi mooy tey nga gis xale yoo xam ne au fait ba doog ñëw boo leen tiimale waan micro dañuy arrière danañ ñu tardé ko ci ci xalé bi wara wax ci micro rek nga am problème bu reuy mais tay nga tok xalé bobu 3 mois yi mat mu tok wax donc loolu euh, satisfaction la ci ñun vraiment ça se voit que né tek nañ leen ci yoon bo xamné xeyna xëy na buñ ci góorgóorloo bu baax dinañu am duñu bëgg mais wax bi rek quoi comme nangu nañu wax rek ak tamit diñ leen doon jàngalé ñu démontrer ko ci 15 minutes donc lolu daf ñoo jox plaisir quoi vraiment. Euh, en tant qu'un éducateur euh, ñu gis ne en général gars yi bu ñu doon def animation dañuy dem rek euh, par leur voix bu neex wala ñu am yenn popularité bi rek ñu ne leen dem leen ci ci station yi ngeen déposer parce que dinañ leen jël et tout ça ñu gis nan ngay ñaax jeune yi nga xamantene ne jaaruñu ci formation yi ndax légui tamit euh, xalé yi ngeen formé fi tang nañ tang bo xamantene ne yaakaar naa ku jaarul formation bo ñëwé di nga di nga di nga suux daal kenn dootu la dégg. dégg la je pense que loolu daan nañ ko gis ci ci ci société parce que tey bari na ci presse bi ñoo xam ne dugg nañu.

ba nga xam dara ba pare après nga doog a dem defi métier radio wala yu mel noonu sinon pousse la dafay yomb trop dal mais boo amee xam-xam comme nii rek fit day dal ci yow. ok dañ lay daal di bàyyi nga tàggatoo rek. voilà di remercier waa El Vision ah parce que vraiment yéen itam yéen a ngi def liggéey bu am solo ci àdduna parce que dañ leen di suivre partout et ci kaw ci kanam ci lu baax kontaan nañu bu baax ci yéen te yàlla na yàlla fay leen quoi vraiment parce que am nañu fierté ci yéen seen liggéey rafet na